moo tax xàmme baax góor gi Ibrahima nu dem daf doon doxi soxla farata piir ànd ak taalibeem ñu dox ñetti fan yu ñu lekkul laanuñu mu ne ko góor gi xam naa loo ma ne rus sa borom a nga ñaan waaye man maa ngee dee ñu julli ba noppi mu ñaan boromam ñu toog rekk nabi ñam yi wër leen mu bëgg lekk mu ni ko téyal sa loxo mu ni ko lu tax mu ni ko iblis a ko indi waaye du yàlla mu ni ko lu tax mu ni ko yàlla xakim la bu nu doon may super la jox xam ne ni suur nanu waaw moo tax aada jara bàyyi xel léeg-léeg nga sikk yàlla te fekk la tax nga sikk ko ci aada la dellu te yàlla war luwul ak nun nu fo dafa warloog nun nu dund yàlla war lu wuroog waaye nu dund rekk looloo tax góor gën ni ko bu doon yàlla benn supeer la koy def xam na ni suur nanu waaye bu dee seytaane mu def ko fukki bool yi reynu benn yoon dañu tibb bu rey rey na borom waaye dund la ca bëggoon ba tax na lu mu jàngalul yonent bi ci côté boobu amul ndax côté ilmu nafs la te bëgg na yonent bi fànn yépp mu not ko waaw wala tuti minhuma xasman wala xakaman fa anta taarif kayda alxasmi walxakami waaw ndax tribunal boo xam ne ñett fa ne kii porté plainte te mooy bakkan bi bakkan bay wax ni mi ngi mi ngi topp ci samay bëgg-bëgg lànk na bakkan bay tawat de waaw bakkan bi mooy tawat nit ki mu nekk ci moom ba porté ci moom plainte yóbbu ko ca juge ba juge ba mooy ibliis ni ko mi ngi topp ma ci samay benk ñenk iblis ni ko kon tey waaye ne nit kooku bu fa fekkul procureur bu mel ni yonent bi fu mu jëm moo tax wala tuti minhuma xasman wala xakaman fa anta taarifu kayda alxasmi walxakami xamuñu luwa xasm bi xamul luwa حكم بخم اللوا كيد لخم تب كيد موي سبترفيج واه كون نك ديفانول سي بروكيرور بي ريك مو سويل واه سوكو ديفي juróom benn junne at yi ak lëf yàlla commencé jàngal aadama muy dox jaar ci nuux jaar ci ibrahim jaar ca doomam ya ba muy agsi ci muhammad mu donn yooyu secret waaye teewul mu gën leena a sonn te yërëmu ko yoonam te yërëmu ko yoonam sayyidatuna Aïcha xam nga dañuy séddale cëru jigéen ñi ñu ni jox leen xawaa ñu ni lu mu koy doy lu mu koy doy mooy umul jinsil bashari kaw koy soxlaatul cir ñu ni nañu jox mariam ibnata imran ndax mooy xayri nisa il alamin ñu ni waaw kay okay. ci ni nañu jox xadija ndax mooy sayidatu ummahatil muminin ñu ni waaw kay ñu ni nañu jox aïcha ndax mooy sayidatu nisaa al arab ñu ni waaw kay yéene nañu jox sayidatuna fatima ndax mooy sayidatu nisail ummatil muhammadiya ñu ni waaw kay moo tax seen sët ba sayidatuna nafisa Maodo tudde na ko doom dafa daan wax ni problème mu góor ak jigéen amul problème mu jikko rekk a am nee na jigéen bu amee jikko sang di sang nee na góor bu amee jikko sang di sang waaw te mooy seen sët moom lañ daan dendaleek asmaawu bintu abu bëkr te fekk moo mujj ñëw moom ca siècle ba ca des lay soog a ñëw sayyidatuna Nafisa moom lañu suul ca Égypte waaw te booba mag ñépp moo leen formé ci moom lañu jànge màndu ci moom lañu jànge xam-xam ci moom lañu jànge tab ci moom lañu jànge teey mag ñépp d'accord ni lu gën a yéeme yonent bi ni mu mel ci jikko ak xam-xam am xulafaa yu day yi mu am te ñépp nangu ni Nafisa moo seetal loolu ak ni mu so rek yonent moo tax ba imam Busiri demee ca bàmmeelam mu jooy fa jooy yu metti ñu ko wëri صفات المصطفى وعلومه ورثت صفات المصطفى وعلومه وفضلكما لولا النبوة واحد ها؟ ها؟ mu ne ko lenn rek la la yonent bi ëppale de jibril wàcc wax ko waaye bu dul loolu ngeen kiif kiif li góor gi Atou Ndiaye daan wax kiif kiif waaw seetal jigéen moom boobu cër ñépp d'accord ci ni Abu Bakar Umar Usmaan Aliyu yonent baa ngi soog am ndono ci Sayyidatuna Nafisa بطخ إمام بوسري ديكو ويما ويمو داي نبي مو ويونالتي إمام بوسري نك مدف بردت المديح تدكو الكواكب الدرية في مدح خير البرية ويهمزيه tudde ko ummul qura fi madhi xayril wara wante mag ñépp d'accord nañ ci ni mënatul mënatul way burd xasida bu mel ni burd mënatu ko ñépp ci d'accord jéem na ko ba tàyyi mu bañ xari xam àttanatu ko ñoom ñépp la dal créateur boo gis am na lu ñuy tuddee l'œuvre de sa vie du ko mën a répéter mukk dana def lu ne waaye boobu du ko mën a répéter moo dal yàlla ci yonent bi

xamul ku yonent bi eh, ba ni mu daan def boo timistee jege mu taalal ko làmp bi eh, timis jege nag eh, néeg bi lëndëm gisul làmp bi yonent bi agsi mu seen keroog la jëkk lo lu ni ndeki góor gi lay sëyal lum ci xam xaleen la mu ni ndeki gi la di sel mi ngi janoog kawaru bop bi mi ngi janoog bakkan bi mi ngi Janok jër bi timis la ba ta moo xam ni du leeru madda leeru zawhar la ca la ko waxe baytam yu yéeme yooyu la ba agsi ci xuliqta mubarra'an min kulli aybin wallahi xuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka qad xuliqta kama tashaa seetal loolu mu ni ko dafa mel ni yàlla bi mu lay bind nag daf la invité nga ñëw mu ni la noo bëgg a mel nga naan ko nii laa ko bëgge nii laa ko bëgge mu topp la ci ka annaka qad xuliqta kama tasha moo tax Maodo ni tollahi ما خفت تحديثا على قسم شرواه ما ضمه الأصداف من تؤب بيت با فهو الذي تم معناه فهو الذي تم معناه وصورته فهو الذي تم معناه وصورته ثم صافى حبيبا بها فجوهر الحزن فيه غير منقسم an sharikin fi mahasinihi dañu ko jàng fekk sama turandoo ngi mu wax ci ñaari baat ñaari baat yu boolee bayti sayidatuna Aïcha ak bu Maodo ak bu imam Bosri dañu way ñaari baytu yooyu mu xol mag ñi mag ñi dill xol ko mu ni leen huwa alxaybu fi shahada waaw ñaari baatam yooyu mu sànni mu jeex ah huwa alxaybu fi shahaada nee na yonent bi mooy antimatière par excellence dépêché auprès de la matière waaw te loolu am waaw loolu am mos ci <laughs> xaar rek euh, dafa wax ni daaw euh, dañu wax ni Shayba mooy Abdul Muttalib ren ñu ni Haashim waaw par maam at bu wala abdul muttalib ren haasum la waaw haasum nag tuddul haasum mi ngi tudd amr amrul ala waaw haashim mooy firi ci arab kuy yéwénal ñam yonent bi dafa am maam mu nga xam ni moo xewal li ñuy tuddee fondation moo xewal li ñoo tuddee resto du cœur te it feeñalu ko yàlla mi man lépp feeñalal ko ko ci suuratu Quraysh xam nga Hashim mooy kuy defar ñam ba mu jekk waaw mooy kuy defar ñam ba mu jëkk mu jox ko ku ko soxal waaye tuddul Hashim jëfam la tudd waaw nde Amr mooy turam جفم نك لنكم مجتودة لو صلول موتا ويكد بني عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف واو يالني لي إلى في قرش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف ah ma ngaa laaj wàllam la yàlla nga laaj wàllam ci añ bi falyaabudu rabba hada albayt alladi ataamahum xaqiqata al itaam wa amanahum xaqiqata al am yàlla dafa dañ kumpa ba ke kenn melul ni moom moo tax boo nee dafa dëñ kumpa ñépp ni ëskay waaye boo nee nit dafa dëñ kumpa ñépp ni acca ndax kenn du ko ci fekk inna rabbaka la bil mirsad nee na maa maa nekk ci observatoire bi moo tax source bi doon nangu lu dog sa diggante ak moom waaw wallaahi moom àggoon na ci lu mu am jënde ko gëléem booba gëléem a xew lu mu koy doyee fu ñam bu baax nekk dana ko fa fekk jënd ko indi jox ko ñi mënalul seen bopp ba mucc muy dem réew réew di dem réew réew di dugg ñam di ko indil ñi ko soxla dem na ci ba am ñu mu féetale ñooy jëndi cuuraay ñoo ko jëggi ba Inde di ko indi pour ñi mënul jënd cuuraay te dañoo soxla cuuraay ndax sedd nit ku yiw dafa soxla cuuraay dem na ci ba di leen jëndal li ñoo tudde alqaranful muy muy xorom eh, man xaw ma fu ñu ko jële ah alqaramful xorom polle moo tax kenn xamul nit ñi fu ñu jële yi ñuy wax kenn xamu ko xam nga mag ñi ñoo tere woon ana koy defal yàlla ci yalwaan ndax nit ëpp na lool nit danga war a deviner soxlaam faj ko waaye bur xaar mu ne ana koy defal yàlla ndax nit ëpp na ko su ko defee dañu mujj d'accord ci ni nag ki soxla nañu ko wutal formule bu ko tuutal ñu ne kon nañ ko jox yaara balaanaam ñun ñu ni laara biraanaam yéeme la mag ñi kenn xamul fu ñu jële doonte baat bi dinañ ko yàq fuñ ko jële kenn xamul seen mbir kenn xamul ko kenn xamul nga yi xale yi di foye daara ji lu ne génn na ci bés soo nomal xayri daf ma ni dafa yërëm xale yi ma ni ko lu tax mu ni fekke wu ñu la neexoon waaw ba daara di neex fekke wu ñu ko mu ni loolu la leen yërëmi ma ko pourtant ñoom yëguñu kenn gis nga rappeur yi ci mbedd mi mag ñi daan jiite jàkk ji yépp moom lañu woon te dañu gënoon teey waaye moom la ñu woon te it seen xaqiqa jamono la ñu daan wax xam nga toll woon nañu jamono kenn xalaatul sax affaire robinet yu kenn xamul li ñu xalaatoon mooy teen ku deful teen ci sa biir kër ñu yedd ndax bëgguloo bokk li sa njaboot yem ci sa kër foog ñu dem duyu ci teenu keneen te loolu nag ñoom bëgguñu ko bu ko defee rappeurs yi jóg ku ci mel ni góor gi Jibril ñing ku ci mel ni góor gi awoon ba ci paan nga xam ni dañ koy wax waaye duñ ko wax ci wolof ci arab lañ koy wax bu ko defee arab maa mooy ndox ci ñoom biir mooy teen daar mooy kër jaar mooy dëkkaale bu ko defee ñu adapté ko ci espèce di wax maa biir biiri daari jaarina ahla min maay biiri daari jaarikum walla ما هو بيري دار جارنا أحلى مما يبيري دار جاركم والله ما هو بيري دار جاركم أحلى مما يبيري دار جارنا حل لولو دنجكو دان وخ بچي الحاج عبد العزيز دباغ مومنتم دقون نجي ba eh, di ko appliqué ci mbaal yi ñoo nappe booba nit ñi dañ daan àbbante mbaal mais xuloo bi dafa bare parce que danga àbb mbaalu jàmbur te doo ko dellu mu nekk coow walla nga àbb ko ba noppi di ko delloo mu ni yéex na nga tooñ ko ci ni ko sa mbaam mbaal mi baaxul mu appliqué ci bayt ya yaa fi shibaki wa sabihan fi biraki laa taxqaranna kiika kiifa kiika kiika kiikaka mat ñi lu ne lañu xam moo tax bu xali yi tepp daf la reelo waaw dafa fekk mag ñi gënoon tey nag ñoo gënoon tey wax dëgg yàlla nanguwuñu lu vulgaire lu ne dañ koy yiwal waaw lu ne dañ koy yiwal ba ci wàññi yi leen di tari alxuraan di wàññi ñoo ko fi indi waaw booba gàmmu fii ci Tiwaawan mook làmba yam waaw waaw dinañu gàmmu ba gàmmu ga jeex te nit ñi duñu dem ci jumaa ja tuutee fay dem kàng yi rekk lañuy topp ca gaar ba bëcc boulevard kenn ku nekk kan ba nga faral mu mel ni mbëru làmp dañuy takku yi jóge Saalum yi jóge Kajoor yi jóge Bawol ñuy jóge fu ku ne am sa kàng man kàng bi ma amoon mujj na di ma jàngal alquran mu di Ousseynou Sall ku mën alquran te man waññi waaye ñoom ñépp sëriñ Moussa Wade dàqoon na waññi waaw waaw bu sëñ Babacar Si daan nag commencé ci min wi balaa fajar rek kamil bi jeex te daf koy booleeg waññi tubarkal la tubarkal pour wax la ni jàmbaar ñu waaw jàmbaar ñu nag Euh, yàlla suñu boroom li mu defal yonent bi bokk na ci maamam yépp kenn ku ci nekk mën nga fanaan ci mbiram ba set kenn ku ci nekk waaye terewul it gis nga fi ko jaarale ci wàllu fitna ci wàllu lu nekk waaw te it mag ñépp dañ ci summil chapeau imam Busiri ndax ñoom ñépp jàpp nañ ni burdatul madix du kese kese ruuxul qudus dugg na ci li ciy bëréw mooy jéem na ko defaat ba tàyyi mënu ko ñi ci desit roy nañ ko ci ba tàyyi kenn mënu ko wante ni ñu ko soppe ndax yonent bi noonu la ko yenn jullit bañe ndax yonent bi mu dajul ci kaw suuf amul moom imaam Busiri xam nga amoon na ñaari jàngoro benn jàngoro bi xamul sax lu mu doon ci biir mettit walla wéye burdatul ma dee yàlla saafara ko loolu am na ñu ci bind téere saaga ko te jullit li euh, cheikh sama turandoo dafa yërëm Busiri ba moo tax mu def irshadaat dafa ko ñaanal ba dangaa jaaxle ndax ba léegi bërki démb laa jot téere bu ñu def ci moom saaga ko te ay état ñooy génne xaalis di ko neexle pour loolu lu tax parce ca cosaan seen famille daf daan wujjante ak famille yu yonent bi te li imam Busiri wax yonent bi nag ëpp na ñu ni nag duñ ko bàyyi ba ba àddunay tukki ku des ci ñoom rekk loo am ci alal di ko joxe pour ñu bind saaga Busiri pour wax la nii ku noppalu ya noppalu waaw waaye goru yàlla yi kenn du ci noppalu mënul nekk waaw moom itam ku soxoroon la nag xasee fayu benn yoon yàqu nga ba faw waaw noonu la meloon boole kook fayda jaag ñàkk fayda ji boole kook fayda jaag ñàkk fayda ji ndax fayda bu jurul ñàkk fayda des na waaw daa fayde bu jurul ñàkk fayde booba des na moo tax ña ko daan xëllamtoo bu solee jubbaam ba agsi ci seen wet daldi summi jubba ba lal ko toog ci du àbb sax toogukaay am ci ku koy tooñ ni ko kisaa am bisab ni ko kisaa am bisab mu ni ko kisaab mu ne ko kisaab loolu la ñuy naxt waaw moom la ñuy naxt ci seen bayaan euh, cosaanam nag mooy sculpture hmm. mooy sculpture ne ne sculpteur di di yeewoo ba defar ba dugalante ba yépp baax am na ñu ko man ci bind waaw am na ñoo xam ni seen mbind sculpture la waaw te moom ca la bokk banaatul wahma wa banaatul xeyaal سرين باب كرسي موكو خن رضي الله تعالى عنه لأن يعني كي من اللخ أكي من خل باب لأن يعني كوشي نحك ما جامبر نغا عمي تميال كي بندوي كي ديف ميزيك كي ديف سكولتور كي ديف بنتور كي ديف بنتور ñoom ñépp bu fekkee dafa dellu ci yàlla banaatul xeyal la bu fekkee dafa dellu ci seytaane banaatul wahma la فلربما سمت الحقيقة بامتطاء خيالي أنت وهم باخل waaw waaw ru am mu ni waaw ruuxu taadul dafa mel ni nag ñoo xaw bokk añ waaw xam nga ruuxu taqdir may la mooy lu ne nga xam foo caa yem may la boo waxee sa soxla ba noppi bàyyil nit ñi ñu wax ba ba ngaa soxlaati kooku mooy ruuxu taqdir waaye bu dee ku wax nga wax adduna tukki waaw dalika taqdirul aziz al alim روح التعادل موديل تي ميزان ميزان ميزان يا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان بمستوى الكائنات ألا تطغوا في الميزان بمستوى المعاملات وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بمستوى الاقتصاديات Mm-hmm. روح التقدير للجفل والله ندسان والله ندسان كنك هاشم تدل هاشم amrul ala la tudd haasim mooy kuy yéwénal ñam di ko jox ku ko soxla dem na ci ba def ko loo xam ne dafa aju ci continent yi dem na ci ba yàlla mi xam ni puukare woo ko mu defal ko ko puukare ci alquran ndax bañ mu niru eh, jëfandiku tey yi dëgg la sax sunu borom wax na ci alquran ni ci loru seetul ki nëbb ak ki feeñal moom na ca jot rekk waaye ne ki nëbb moo a gënal boobu la Haashim jël comme daraja fexe ba muy daraja ki soxla te bañ di daraja ki ko dimbale ca soxla sa liggéey ko itam ba yàlla indi image ba ci suuratu Quraysh moo tax mag ñi daan ko bindal seen doom yi def commerce ñu di ko def ci seen buntu butit bu ñu dee génn réew itam ñu bindal leen ko ñoom gëm nañ ko te gëm mooy maye gëm nañ ko te gëm mooy maye xam nga li imam Busiri waxoon ni jamono ngi ñëw bu nga xam ni dafa reeloo nit ñu ne ko lu tax mu ne jamono la bu nga xam ni danga gis ku écrasé ngëm ba noppi tabax jàkk ca wet ga lu fa jàkk jaa ki écrasé ngëm ba noppi tabax jàkka ca wet ca lu fa jàkka ja def sëriñ Babacar si dafa am ay njabootam yu xuloo ci jàkk ndeysaan ci yërmandeem mu dem seet وخلنا وخو وخو وخ بدفي نسوتين نقل فجوغي ندالو جميرما مجل حاج منصور سيابل مدام سات لين وخد نيوم وخد نيوم وخد نيوم متاجا أه جمجو فابرم مني من يبايلين خير ma ne ko baax na waaye problème bi ma jëkk réglé gannaawam boobu la ma dem fa ñu di ma jaay fiq te fiq du ko réglé xel rekk ko réglé ñu ni ma dañ ko natt jubluwul penku man leen jàkk cheikh jubluwul penku su ma turandoo jàkkaam mooy na penku waaye ñi cay julli duñu mooy penku man leen lu lu lu yomb dégg la man leen xamuleen ni mimbar mën na féete sow ndax yàlla waxul ak mimbar nit ki la wax ah? dafa fekk nag ci kamaaliyaat yi la bokk la bokk boo respecté jàkka fokk mimbar ba nga féetale ko bekku waaye mën nga ko bañ féetale bekku te du te yow mi fay julli nga julli féet féet sa kanam jëm bekku lu woyof la te noonu lañ ko déggee it tabarkalla tabarkalla juboo ca مملنا ci wàllu xel Hachima àggoon na fu nga xam ni li ñoo tuddee sécurité moo ko jëkk yi teewoo ba yàlla fekk ko ci falyabudu rabba hada al bayt الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف نانغولون كن جام كن جامك نانغولون كن دوغال كن جامك نانغولون كن نانغو يفي جامبر جمك نيكو دوندالي نجي لورو يتيلي نون لاكو sécurité nit ñi yitteele woon ba yàlla rus ko ci mujj dundam yépp musiba amatul foofa mu mel ni sécurité am na solo waaw euh, Abu Dharr أبو ذر الغفاري nee na xéewal yépp ñàkk sécurité mën na ko yàq nee na man dama nekkoon chef de bande di dogale nit ñi di jël seen alal nee na ba benn bés ñi ma dogale ay perantala ngi ci ñuy nàmpa ngi ci nee na ma rey ñépp nee na ma dem tëdd jëm-jëm nelaw mu dëma mel na liir yi dañoo joy ci sama nopp dana ma jóg bu jekk yee sama rak yee sama yaay nu daw wuti fu nu jëm ndax boobu dëkk bi yépp ci loolu la ñuy waaye nee na lu gën a met walla lu gën a metti rey liir ne amul nee ma daw nee di daw ñu topp guddi gi di daw ba àgg mag waaw nee ma làqu nee na façon bu nekk dana ko def bu guddee ba dem ci wetu kaaba gi xawma ma lu may jàng xaw ma lu may wax waaye daal danaa dem toog foofa mettit lu li ma def ndax ba tey baatu liir yaa ngi ci sama nopp di jib nee na balaa fajar ma daw ci ruq ba ma nekkoon nee na rakk jëy ko lii metti na tencee sàkk pexe mu ni ko ban pexe moom koy xanaa yàlla rayoon ma rekk moo gën ba rakk ji dégg turu yonent sallallahu alaihi wasallam muniko amna kuñ fe wax de muniko kan la muniko kuñu wax Muhammad ñu ngi wax ci mom yu bare yu bax teen ca dem muniko ay ci ba ñu ñëwé dafa gis yonent bi rekk tuub ci moom mu boole ko ak Sayyiduna Abu Bakar mu ni waaw mu ni Sayyiduna Abu Bakar naka lay def ba jot liir yi ma rey mu ni ko nga ñibbi sa dëkk mu ko kon ñu rey ma mu ko mukk yonent bi li ngay def moy bakkan ma sa rey fexel bo dugal bakkan bu ni toll ci l'islam mu ni ko yonent bi dana garantie sa dundu ba bang koy def mu fabu dellu dëkkam waaye mujj na dëkk ba yépp mu wanga leen indi leen ci yonent bi pour jote ko liir ya mu rey pour wax la ni lépp ci yàlla la dellu hmm? ومالي كون هاشم دال عبد المطلب ام نتشر مي هاشم يتشرم كل جيس نكو كلي تعلم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل كي جلي الى في قريش الى فيه yàlla dafa sot te ñoom ñaar ñépp maamu yonent bi lañ kii mooy jur baayam kii mooy jur baayu baayam tabarkalla tabarkalla dafa mel na daan na wax waxin bu mët bàyyi xel moom Haashim nee dënn bu ca gillinu safara jekkee ne kenn du ca tapp médaille nee dënn bu ca gillinu safara jekkee nee na kenn du ca tapp médaille muy li yonent bi wax ni fu yet jekk bu fa kenn teg terang waxu maamam boobu la dundal mu mel ni kon nag tabarkal tabarkalla kuy roy am nga royukaay ndax yonent bi royukaay la te yàllaay borom bi te moonu sant pour ñu roy ko mu mel ni bu jamono naqadee ba naqadi nag ci lay gëna neex nga am yonent bi xamuloo ni neexul bala ngaa xeex am foo sës neexul neexul bala ngaa xeex am foo sës